ñu naan nañ génn ci euh, maanaam waa APR at waa Benno Bokk Yaakaar waaw xam nga Sénégal dafa def mu xam ne mu am ay doom yu xarañ mhm. c'est-à-dire doom yi am nañ compétence am nañ lépp ma joxe exemple ku mel ni Abdoul mbay mhm. Abdoul Mbaye ñu ràññee ko si compétence am ràññee ko si njubam ràññee ko également lu mu indi si askanam mhm. ma xam ne ku mel ni moom boo ko joxee réew mi mhm. dina ko yóbbu ka dina ko yéegal ci kaw te jafe-jafe yi ñu jonkartoor fi ñu toll nii mhm. ku mel ni Abdoul Mbaye nga xam ne moom lépp lu muy ut tey du utul bayre mhm. utul xaalis utul leen dafa dem liggéey ne fi mu nekk nii fu mu toll nii askan wi la bëgg a jëriñ na bëgg a jëriñoo mais nag euh, man li ma jaaxal mooy monsieur Thiam Abdoul Mbaye euh, mën nañu ne c'est très rare nga koy gis muy euh, saafonte at askan wi bien vrai que ne nekkoon na fi premier ministre gisoon nañu aussi tamit li nga xam ne def na ko ci gouvernement bi liggéey bu am solo bi mu def mais loolu est-ce que c'est suffisant pour nga tey nga yootu réew mi. waaw soxna si xam nga tey boo taxawee ne Abdoul mbay du saafonteeg waa réew mi. Mm. defe naa ne kooku sax xalaat la. nu mu doonee sa xalaat. Mm-hmm. parce que ñuy nekk Sénégal dañoo tàmm. ñuy jël xaalis yore tama yéeg di di au presse bi ñu leen di déglu fu ne. Abdoul Mbaye est-ce que lañ leen tàmmal aussi. waaw mais Abdoul Mbaye doonul nit kooku. Mm-hmm. Abdoul mbay mu ngi nekk di dugg ci population bi di dem dëkkoo dëkk pour di saafonteeg ñoom. Mm-hmm. seen seen jàngoro. ba mu defee loolu tamit dafa bugg a xam ëllëg bu yoree réew mi lan lay nit ñi di xaar si moom soxlawul nag mu toog fu ne mu yore ànd ak ay tamak leer man mun naa la seddeel lenn. Mhm. Abdoul mbay toutes les semaines du sax élection yi ah. c'est-à-dire ba mu duggee si mbiri politique ba décider depuis 2016 day saafoonteeg askan wi. d'accord donc yow bu ñu la déggee mooy que ne sa mouvement Abdoul mbay ngay jàppale pour élection présidentielle. non man at Abdoul mbay du jàppale. Mm-hmm. parce que Abdoul Mbaye moomu réew mi Abdoul mbay dafa bëgg réew mi. Mm-hmm. comme ñun nuñ buggee réew mi. mu bugg ko so mu bugg ko yëkkati ñun ñu bugg ko yëkkati. Mm-hmm. c'est-à-dire moom comme dafa am pas-pas pour yëkkati ko dañoo ñëw fekk si ko pour dooleel ko parce que booy jàppale nit da nga koy utal poste c'est-à-dire aujourd'hui politique bu xew. moom mooy tey bu ma ne damay ànd ak. nu mu tuddati sàmba wala Demba. Mm-hmm. dama bëgg mu utal ma poste man nag Abdoul Mbaye gënu ma bëgg réew mi de soxna si. Mm. Abdoul Mbaye dafa def ne moom askan bee ñoral ñu daje si nag. Mm-hmm. comme ñu daje si te ma gis vraiment nu mu mel ak nu mu gëmee boppam ak nu mu gëmee réew mi ma ne kii kat il m'a séduit par le discours naa ñëw. dooleel ko ñu former benn coalition boo xam ne ñu ngi koy taxawal bu élection 2024 yi man en tant que euh, président de mouvement euh, politique un autre avenir ak ñeneen ak ñeneen parce que y a plus de plusieurs formation politiques mm-hmm. ak ay citoyens yoo xam ne du sax politique mais dañoo bëgg nekkin wi fi amoon ñu jële ko fi ñooñu ñoo taxaw gunge Abdoul mbay dooleel ko parce que ñun ñoo bokk direction bu ñuy xool mm-hmm. Abdoul mbay nag du koo xam ne da ngay ñëw ngemb ko pour utal ko poste am na ko ba pare am na ko ba pare d'accord kon boog ñu ngi leen di xaar ci élection yi Euh, présidentielle yi nga xam ne moom lañ jëm at ki nga xam ne rek moom mooy Abdoul Mbaye euh, ñu wax euh, jamono ji ci ki nga xam ne moom mooy leaderu Pastef boobule di Ousmane Sonko gis nañu ne mi actuellement mi ngi fi nga xam ne moom mooy prison jamono ji nit ñi di laam-laamee candidature am naka nga gisee politiku Ousmane Sonko. waaw man bu ngeen xoolee ci internet bi. Mhm. wala ngeen xool ci plateau télé yi. defe naa man maay premier politicien boo xam ne. Mhm. musuma ànd ak doxali ni Ousmane Sonko. Hmm, ci parce que pour man politique du c'est un débat d'idées politique du man tàggu naa sama baay tàggu naa sama yaay tey sa gatsa gatsa tey euh, euh, politique c'est un combat d'idées. Mhm. c'est c'est un débat. Ousmane Sonko xale peut-être bu bëgg réewam la mais Ousmane Sonko malheureusement ba mu dooree ñu ko ngemb dafa am si seen biir ay radiko ñoo xam ne aujourd'hui ñoom lenn moo doon kii dañuy foog ne pouvoir dañ koy ramasser pouvoir nag si fenn rek leen lañ koy jëlee. Mhm. kenn du ko jëlee si mbedd surtout Sénégal gii ñu dëkk ñu ngi koy jëlee si élection léegi Ousmane Sonko bu fekkee ne wuutu woon na réew mi. tey maa ngi xool si saat si. Mhm. ñëpp a ngi woy Ousmane Sonko namm naa la. mais mhm. buñ commencé woon si des manifestations pacifiques. mais li ko dal nii du ko si fekk donc une part de ça mais est-ce que manifestation pacifique yooyu ngay wax noonu dañ leen koy accordel parce que saa yuñ ko demandé ñu interdire leen ko. waaw mais xam nga xam nga soxna si. Mhm. yéen ñu ngi nekk ci élection présidentielle bëgguma tey suñ jotaay bi. Mhm. ñu toog di di di yàgg ci Ousmane Sonko. Mhm. pour man Ousmane Sonko aujourd'hui il est hors circuit. Mhm. il est hors circuit parce que il est dans les liens de la détention ñaanaluma ko ko nag parce que kenn du ñaanal. doomi aadama mu nekk si jafe-jafe yooyu mhm. mais bu ñuy wax politique man dama seetlu si si journaliste yi mhm. le débat politique au lieu ñu ramener ko sur un débat d'idées mhm. seet lan mooy jëriñu askan wi débat de personne la Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui finalement est sorti et devenu hors-jeu maintenant si nañ xool pour ñu gimbaleku ñan ñoo samp nëndëm parce que fii ñu toll nii ki nekk Rebeuss wala nga nekk Sébikotane mhm. à six mois des élections et aujourd'hui ñu condamné la pour kii euh, pour je ne sais quoi pour deux mhm. ans mënuñ toog di ko waxtaanee boo bëggee tey nga invité ma mhm. je veux pas qu'on sur di hommes politiques. je veux que ñu dem. ci les questions de xam nga xam nga Ousmane euh, Sonko dafa marqué empreinte am euh, ci li nga xam ne moom mooy wàllu politique depuis ba mu fi nekkee ba tey bien vrai que ni euh, mën nañu ne des fois. am na yoo xam ne euh, problème politique la ñoom at problème vie boo xam ne vie personnelle la ñu daal di koy politiser tey jii nii loolu yëpp bu xewee euh, gannaaw yàlla ci politique bi moo tax. mbir moomu xew Sonko marqué en politique wax ma mais gis nañ ko Ousmane Sonko bi nga xam ne à chaque fois fu mu génnee sénégalais yi ñëpp ko bëgg. ba tax na tey jii ni Ousmane Sonko tëj nañ ko te terewul dafa mel ni Ousmane Sonko mu ngi mi ngi mi ngi. ci mais mais xam nga yow notoriété nga may wax dama ne mhm. Sonko. lan la defal askan bi ba ñu ràññee ko dama la ko laaj. mais parce que dafa tax askan bi yeewu. ci forme de ah. politique bi nga xam ne euh, sénégalais yi mën nañu ne politiciens yi moom la ñuy utiliser. lan la ñuy utiliser politique bi bi ñuy utiliser jamono ji comme ni nga ko waxee woon sànq nga ne jamono ji euh, bu ñuy politique euh, nañu woo sabar yi. non waxuma loolu waxuma loolu de. n'est-ce pas loolu nga wax comme si le cas de Abdou non waxuma lu la loolu xam nga lu ma la wax. dama ne mm-hmm. le politique c'est un débat. d'idées mhm. ku ne day ñëw ne nii laa xalaate jëmale askan bi ci kanam nga ne ma Ousmane Sonko il est vrai il est devenu un phénomène mhm. un phénomène boo xam ne une partie de la jeunesse ou une ou, ou la majorité de la jeunesse mhm. foog nañ ne moom moo leen siy génne mais man Ousmane Sonko je ne partage ni ses point de vue je trouve que Ousmane Sonko ses positions sont populistes Ousmane Sonko je vous parle sincèrement on tire pas sur une ambulance aujourd'hui waxtu yi ñu toll nii mhm. maa ngi koy ñaan mu jóge fa mu jóge fu si lu mu nekk mhm. parce que tey Ousmane Sonko politiciens yuy topp di wax dañoo bëgg Ousmane Sonko libéré wu kenn gëmu ko mhm. parce que ñoom kenn gëmul ah, seen biir mais Abdoul Mbaye tamit mi ngi koy wax day wax pour pour ñu libérer Ousmane Sonko kon xanaa tamit gëmu ko non Abdoul mbay boo ko dégloo n'a jamais varié Abdoul Mbaye dafa ne Sonko dafa waroon wuy ji. n'est-ce pas moom ci F24 la bokk. F24 dañ ko tëraloon pour lutter contre la troisième candidature de Macky Sall. et quoi d'autre jëluñu ko non. et quoi et sur la libération. des détenus politiques mm-hmm. et foofu dinaa fa teg tànk dinañ bu ñëw c'est quoi un détenu politique. Mm-hmm. parce que quelle est la définition d'un détenu politique. est-ce que y a des détenus d'opinion que je considère ay détenus politiques lañ. Mm. mais ku sànni bus lacrymogène mm-hmm. ku toj au champ ah ku sàcc biir kër ñu jàpp la sur les mille soixante deux de détenus mm-hmm. je peux pas considérer que l'ensemble sont des détenus léegi ñiy wax ñiy wax maanaam ñi nga xam ne dañuy wax wala ñu posté ñu ñu jàpp leen ñoo ñu lan lañ leen di considérer des détenus politiques wala des ce sont des <laughs> détenus d'opinion effectivement on peut les considérer comme des détenus politiques bu mm-hmm. fekkee ne on les a pris parce que mhm. ñoom dañ doon joxe seen opinion mais bu fekkee ne dañ la fekk nga téye nit saaga ko mhm. wala nga téye nit wax ko naka sudul noonu mhm. tu n'es pas détenu politique c'est un même un délit commun de droit commun nañ nañ sérieux effectivement moi je pense que Sénégal war nañ toog ñu mhm. définir qu'est-ce que c'est qu'un détenu politique. léegi yow nan nga jàppee ñi nga xam ne tey bu ñu waxee walla ñu ñu ñu ñu bind ñu jàpp leen de l'autre côté ñoo xam dañuy taxaw publiquement ci écran yi di saaga.